kon wax nañu li tax ñu ne dañuy reporter manifestation bi leen soxna ay dem boo ñu wax yëpp ay raisons yu valable la parce que réew mi ñaar moo fi nekk léegi benn fànn bi dafa am Macky Sall nga xam ne wéet na tey làqatu ci gannaaw police am ak gendarmerie parce que xam ne ni askan bi won na ko gannaaw mu jàkkaarloog ñun opposition bi ñun yoruñu police yoruñu gendarmerie yoruñu gànnaay. suñu gendarmes, suñu Sénégal le peuple sénégalais c'est suñu police moi, suñu gendarmerie c'est suñu justice moi, suñu gendarmes. Moi, il faut nous dégloon Je askan sais man waxuma kenn est ci Sénégal askan vous waxal parce que askan moi moo dem ba je ni y a askan wi di dire. wax lii mu di proposer donc man askan wootewu ma ndimbal fenn askan wi laay waxal askan woowu nag dañ ko war a dégg di ko déglu askan woowu dafa mu waxtaan a ñun ci fan yi soxna ay de cité na ay secteurs yu bëri waaye ëpp na loolu mënuñu ko lim fii la ñu jot ñun ci ay message ay appel ay yóbbante ku fi toog rek ci ñun ay junni junni junni

fait éliminer les candidature T'es ko ci ay parrainage ak inéligibilité élection législative bi mu éliminer ay candidature élection locale du moins dugg ci élection législative mu éliminer candidature ndax moom ni fonctionner def def dara du 2021 février 2021 bi muy complot mu bi ko gars yi waxee daf ne daf leen ne nañ def li ñuy def te dara du yëngu waaye bi la valise safee daf leen ne tout est mystique dans cette bu jógee fan xam nga ñoom lool la ñu gëm moo tax foofu nañ ñu lépp mystique